day jël ñoo dëkk bi ah ces gens là jëriñu ñu dëkk bi man gisuma Diop si loolu la fi def. du dara ah, billahi du dara am na ñaan ñoo xam ne mënoon naa leen tudd fii ba mu jeex. mais am ñoo xam ne liggéeyuñu y a des gens qui sont là mais moi je sais pas je vois un garçon qui s'appelle Cheikh Baba par exemple. quoi mm-hmm. mais ne kenn xamu ko. Mm-hmm. damay wax ah ndax yàlla tax parce que il faut ñu def ay éléments de comparaison. Mm-hmm. ce garçon là il vit au Koweït il il investit au Sénégal Cheikh Baba. di di jëm dimbali ay doomu aadama te coow jibul mais ñooñu ñooñu est-ce que ñooñu waruñu leen xam. Habib Niang Thiès. Habib Niang Thiès mais qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant ce temps-là. Mhm. a ay centaines de tonnes. la def ay dugub c'est mhm. un euh, euh, seen mboq etc. Mhm. et cetera etc. qui linge yi qui euh, qui kitu Il laa. yooyu ñuy raxasoo ay antibactérien lu il waa jooju def na fa Habib Niang Thiès. c'est un garçon qui a à peine 45 ans pourtant ana ñoom Idrissa Seck ana ñoom Talla Sylla ana ñoom là, Diattara ana a Siré Dia qui a géré 5 ans de la poste mais quand même 5 ans il nous la poste Yep, état financier moussou koo joxe. mais c'est mais ces gens là mais ces gens là mais ils dañuy servir ci dëkk bi alors qu'il y a ces garçons là ils ne sont comme Habib et les autres il y a Famara salle aussi. Famara ça, mi ngi fii sur Mer soriwul. la lu mu defaral population bi maire ba pendant ce temps là qu'est-ce qu'il sert à lui qu'est-ce qu'il sert mais ñu mel noonu la ñu war a jël def leen ay maire. malheureusement ñooñu la ñuy chaque jour am. mais ñooñu la ñuy ñooñu mais mais mais Sénégal bu leen sax mais caaru suñu leen faama la faama ngeen def ko maire. waroon nañu wax Sokone la ci ki nga xamante ni moo di Bamba Fall. mais malheureusement waxtu bi daf ñoo dab il faut que ñu ñëw léegi léegi dem. ci li nga xamante moo di